wax ne leen ko xoot jiitu na la soo leen déggee kit scolaire ñu koy distribuer ne leen xoot jiitu na la xoot jiitu na la xoot jiitu na la leneen leneen li nag foog ma bàyyi nag ñu denc ko am na lu bëri lu bëri li ma bëgg a dolli ci programme bi mais damay bañ rek gars yi copie bi nan xaar nag ba jouru meeting officiel mooy sunu meeting de candidature avec Yeumbeul Sud dinañ ñëw wax sunu programme dugg ci kër yi wax leen lan mooy sunu programme ñun luñ bëgg mooy Yeumbeul nekk Yeumbeul boo xam ne képp koo xam ne amoo fi kër nga wër ci nga wër kër ñëw dëkk fu Yeumbeul képp ku fi dëkk nga bañ fee tuxu ñu ne Yeumbeul lépp lu président jël koom objectif am ambition dañ bëgg Yeumbeul jiitu ci xam nga xale yi di jàng bëgg naa lool xalé yi ngeen gën a góorgóorlu surtout ci matière scientifique ndax té science moy gëna a réew kanam dëkk yi nga xamné ne ñoo jiitu ci aduna bi ñoo ëpp ingénieur ñoo ëpp ay technicien té lool nak da ngeen koy téla a commencé bi ngeen nekkee xale ci âge bi ngeen di commencé loolu bëgg na nak fi ak 5 ans at yi di ñëw

artisan yi ñi nga xamné ay artisan xam ngeen am nay artisan yu jang ay artisan yu nekk ay maîtriseur yu am ay master yu am ay licence artisan yi dama bëgg ñu liggéey ñun ñëpp def fi benn village artisanal bo xamné tous les artisans dañ fa mën a dem ah, liggéey yëngatu mën a am nun daanee doole loolu bokk ci li nga xam ne bëgg nañ ko def centre de formation professionnelle terrain natange président décidé na ko incha allah travaux yi dina commencé balaa at bi di jeex. terrain de foot yi fàttewuñ ko sport tam ci la bokk artistes yi du leen fàtte personnes yi nga xam ne dañuy dugal an dañuy handicap du leen fàtte. en conclusion soo leen wóoluwee ci mairie bi xam nga tey budget mairie. ay ay 20 pour cent rek moo ci nekk investissement lépp fonctionnement la ñun suñ jëlee la mairie investissement dañ koy gën a yokk ndax classe yi ñu tabax ko classe yu manqué ñu tabax ko classe yu nga xam ne ah am na lu ci war a defaraat. réhabilitation ñu défar ko comme nu ñuy défaré actuellement école Madi Ndiaye école Madi Ndiaye amul won ay toilettes amul won clôture jël nan entrepreneur mu ngi koy liggéey té inshallah dina ko jeexal balaa fin du mois bi di jot fin du mois d'octobre octobre lool lepp loolu bokk na ci li nga xamné mom lañ bëgg défal wa yëmbël ak jeunesse yëmbël ma ngi leen di remercier di leen encourager encourager les parents di encourager parents yëpp encouragé ñëpp di leen gërëm a ah, di leen sant